Mhm. léegi nag nga teere si ndeyu mili ji bukan ngay dane nga xamante ne tabarkal macha allah ñëpp gis nañ ko si ndimbalal gi muy def si réew meeg mhm. jàppale ñi ñeeg yooyu xam nga léegi yow boo bëggee toog fii di wax bugaan ndaxte lan dafa tubb sa tànk président moo tax mooy tibb tànkam waaw ba pare di wax dëgg nag ci réew mi nday waaw gis nga baax ci biti te baaxoo ci sa biir kër megul benn sens mhm. bugaan ngay dani man mani ñetti jabar ndegam atonoko ko munoo attan sunu rew mi mbugaan te nga ci sa tele bi ben bugan amo écran plat doomu ben baas bee abal bugan fayo yow say cameraman ñum ñep dem nan ñi ngay torox di joy bugan wayo bugan neena la nga dindi sa photo yi nga taf ci dekk bi xam ci tour eh, ah attends ah kay ah kay Bougane lan moo tax nga ne boo gisee télé bi macha allah def immeuble bu baax. mais yooyu yooyu yëpp ngistal la li ñuy def ci biir. nee naa la Bougane du fay cam ñiy def caméra ñi ñi ñi nii du leen fay caméraman yi. pourtant émission mu ngi dem émission baa ngay dem boo amul la la gënal da ngay jàpp ca la fa sës. Bougane seetlu lu ma lay wax. Bougane dàq na paaye fa ne woon saaga leen. bukan sagana na eh, Clédor eh, eh, rakk ja genné ko fa bukan nee la ñetti jabar yi bukan tak moko def lo xamul fu mu koy mu xiir ko ci réew mi <laughs> bukan yamal ci sa télé bi man ci télé mbi la ko nawé won no yow da nga bëgg wa dé bukan actuellement ni limu mu nekk li am ñetti soxna waru mëna a nekk njiitum réew mu ñu leen réglé mëna nañ am trois dames moo ko defloo moo awo ba ah. ak momi mo gis nga dafa melo am am am boobu ngeen doon yónnee nu mu ci bi ngeen di yónnee jooni jooni am beneen ba am na beneen bu mu amaatoon yooyu yëpp lu ko def naaw ñetti jabar ya <laughs> ñetteel baa toroxal buggaan ci réew mi mu dof ay waa këram nan ko jàpp yow yow ya, kura li ngay ya, wax dafa doy waar parce que ñetteel bi su ma juumulee ya, mooy kii doon liggéey ak moom. kii te mu ngénte woon ko ngénte lu rëy li. ñu ngoog. waaw kooku nag kooku nag moo yóbbu furu fara bugaan bugaan réer xoolal léppam di def nii xoolal xam nga ni bugaan bu demee. ba président république lu mu war def. bugaan gëlëm gëlëm lu tax ñu woo ko. waaw mais attends parce que moom dafay ñaax xale yi ñu dem bindu ji donc loolu. moom du cëram. moom loolu mu def mën na ko def ah. ñëpp a ngi wax xale yi dem leen ngeen bindu dem leen ngeen defari seen carte mais lu tax Bougane kan la ci réew mi ba war a jël posteram bu mag boobu mbete mbete président république doonagoo ko yow munoo gérer lu lu télé bi tudd TV munoo ko gérer ña ngay jooy nit ñaa ngay jooy ñoo ma ko wax xam seen TV am solo. doxul yow seen TV ba mu lay wax ne seen TV doxul. ma dafa bari lépp lu ñu fa wurut xam nga tey seen TV ku fa ku fa tedd. Amadou Ndione. waaw. alias Ahmadou Aydara doomi dàngit moo fa moo fa am moo fa am place raw ñooñu. mais say xarit lañu waaye ñu ngi tukkalaa dina ñooñu ñoo fa ñooñu daal ñoo fa am salaire ñi ci des ñëpp France sama xaritu benn bakkan Bougane yoral na ko xaalis ci télé boobu la doon liggéey Bougane ameel na sama xarit xaalis foofu la doon liggéey ñëpp xam nañ sama xarit ameel na ko ci benn publicité publicité bu ñu defoon ci diggante bi kooku bàyyi topp na ko ba sonn nee na ma bàyyi naa kook ak yàlla buggaan ah, ak ak ka ko feesaloon télé ba euh, kii ba stade euh, géejawaay ba yow buggaan def rentrée xale bu jigéen ba ko feesalal kaaram yooyu xale bu jigéen boobu ba tey ji mi ngi jooy mun mënut a gis buggaan ak bët xamul fu bugan ne ma ngay jey moom dal bugan dal nga ngi rew mi di def ngistal police bu ñu rajee buggaan ne jël nako en charge mais ñi koy caméra du len fay mais yow euh, sen TV mi ngi tok la moy toj sen TV ku rajee xana ñak fayé ko mo na day top day tan ko Macky Sall yow xana xamone président ci ginaawum ci tankam naan dang koy mm. mais yow ngay delu ginaaw ñetti jabar day nonu money. mané nga sa télé bi bugan gay dani yi ngay def sénégalais dara ñu rew leen ci xam nañ ni yow bugan of joni joni of bugan sa ndig ni karaj waw kay waxal sénégalais né leen sama ndig mo ni karaj mooy ñetti jabar la yor bugan dafa mëna dem fenn bugan bu ko <laughs> toog lu yàgg sax manu ko fu oto dawee ñaari minute buggaan ni may leen ma ma tàllal sama ndigg ma ne ko bi ma ne ka rek ndax ñetti jabar ñetti yi nga bëgg a yor suñu réew xanaa yow kon dañ ñu bëgg a rey yow bugga musul am ci àddina musul fii am Sénégal Sénégal benn rek moo fi ne benn première dame rek mu mel ni suñu ajaa yi mère de nation Marème Faye